jëlilaayi maskaniitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wa jëlilaayi maskaniitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wa salliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saaraat ونجني وخله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفاس حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا bokki julli yi bokki taalibe yi bokki Touba ca kanam yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax te wax ne dañoo àndoon ak suñu jëwriñ tey sëriñ Habibou ak bokki Touba ci kanam yëpp suñ si am mbàkkam ak suñ si amoon du yooli baaw ak bokk yi bokk yi ñu ko seqal liggéey bi ñu doon xool sànce yi fu mu toll alhamdulilah baax na ñu ngi sant nañ ci yàlla bu baax ndax gis nañ ne mi ngi dox bu baax fenn fu ci ne liggéey bi ma ngay dox ñuy sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko teg seen loxo ñu koy saytu tàmbalee ci ñi nga xam ne ñooy commission bi ko yor muy euh, réalisation suñu maam ci Ndiaye jiitu ak ñi mu ko àndal ak euh, bi nga xam ne moom la Abdoulaye loo jiite ak ñi ko àndal ak ñi nga xam ne ñooñu lañ teg sànce ñu fay nekk di réception yi kenn ku ne benn bu ci ne dem nañ ci gis nañ fa liggéey fa mu toll ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di ñaan yàlla ci bakki Sëñ Tuubaa mu defal ndimbal ba ni nu ko tàmbalee nu ubbee ko ni ci bàkki sëñ Tuubaa te yàlla yàggal fi sëñ Muntaxa waaw liggéey bi it waaw loolu itam liggéey bi it alhamdulilah sant nañ ci baax ndax mel na ne kawe na njort ndax biñ ko xoolee moom gis nañ ne suñ suñ bi wax sànq waaw mel na ne tabax bi daal suur moom <laughs> maanaam liñ ko ko liñ ko jox moom mel na ne <laughs> wax dëgg yàlla xaw naa xaw naa xaw naa ëpp sax daal bu doon bu doon lu ëpp ndax <laughs> waaye nag loolu itam dañ koy sant sëñ Tuubaa ndax def loo xam ne bu àddina tukki dafay des ku ñoo xam ne Touba Kanam ñoo liggéey liggéey bu aw yoon bi loolu ndamul Touba Ca Kanam gépp la mm-hmm. moo gën defi loo xam ne bu ñu ko defoon ñaar at ñett ñu ne man nanga ma nga yàqu mën naa defewaat kon loolu itam dañ koy sant sëñ bi kon kon nag yooyu yëpp buñ ñëwee yàlla dimbalee bañ mën a ñëw ba fii ndax wax dëgg yàlla fii ak fañ fañ jóge biroyal gi ñu jóge woon xam nañ ne soxla nañ ko lool mm-hmm. loolu nag moom bokk na ci lii taw tawfeex ji mooy yóbbu ko foo xam ne ñëpp xam nañ ne soxla nañ ko te ñu ñoo xam ne ñëpp dañoo gàddaay fekk sëñ Tuubaa kon lañ soxla te mënuñ coo ñàkk waxtu ne war na leen a jege bañ mën caa jot yal nañ sëñ bool defal ndimbal ban mbokk ko ubbi di mbokk sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu suñu mbokki taalib yi ñu leen si yëpp di leen sant di leen gërëm ak waxtu leen dox waaye liggéey si mi jar lu ëpp loolu ñu leen sant baax ci turi Tuubaa ci kanam di ko sant mbokki taalib yi mbokki jur yëpp ak ñi nga xam ne doo doon wër si liggéey yi nga xam ne moom la Tuubaa ci kanam jigoon ngir di ko liggéey Sëriñ Tuubaa dem nañu ba wéral dem nañu fa Daaru Xadim jógee fi ñëw ba fii ci dëkk bi ci kër Gol ñu sant yàlla baax sant si ñag mi nga xam ne moo doon entrepreneur bi tax ci seen liggéey bi bi baax na si ko jaar am na solo euh, kon ñu sant ñëpp rek te xam ne murid yi bi ngeen dañ joxe ñu ngi mii nii rek euh, wax nañu téeméeri kaay ma wax la benn kaay ma la gën a wóor kon ne ñëw wane si tey jii lii nga xam ne gis ngeen ko lii ku ci sa jaar téeméer dugal xam nga ne bokk nga ci

Euh, te kenn jënd si muy murid yi suñ tuwaa ñaanu yàlla ci mën la foo séeni ñëpp gis nañ ko euh, ñaan ko yàlla ko yàlla nangu suñu loxo te il ko noppi waaye na ko nangu suñu loxo ñun ñu bokk ci xam dañ ko doxal lu yàgg-yàgg ba bu ñu fi jógee ëllëg ñu fi ñu yëkkati ko mu jàll kon nañ fexe ba Touba Ca Kanam moom bu laal suuf rek lu ñëpp yëkkati rek ñëpp sant naa leen kenn ne sa taxawaay gis nañ ci yéen yàlla na fay li a wax mënut bari na waaye nag moom euh, waxtu yi sonn te kilifa yi sonn ndax xam naa ne gi dafa xaw a am ñum laal tuuti moo tax waaye sant yàlla rek barke jërëjëf yàlla li taxaw bi ñu toogee bu ay nit bu ñu la dénkee mbir nga toog bu yàgg nga def càmbar ko xool ko dem ba xam la nga leen jox ak la ñu jox fu ñu dugg waaye xam nañ ne seg yi ñu fa indi koy bind di ko signé seg yooyu agsi na figure gis nañ ko bare woon na ci jàmbal li waaye biñ dikkee xam nañ ne lii dugal nañ ko fi ñu ko fi ñu ko indi woon loolu rek moo tax ñoo ne tey def na fi sànc boo xam ne day bette euh, njëkk ba ay une heure deux heures nga départ ci digg bëccëg gi mm. dox ko ngir te kenn néew kenn maa ngi ko maa si ko loolu mooy wane ne euh, dañuy xool li ñuy def ba xam ñi nga xam ne bett nga leen ba xam mm. waaye tabaarkalla fu fa dem rek ña yor loola fekk nañu nekk ci leen war mm. euh, kon noonu rek fi demee ginnaaw daa baaxul nit ku nekk fu nekk bu bu bu duñu teewee wala kenn nekk fu mu na na na jàpp na rek ma nekk loolu am nañu ci wax ñu ne gërëm. maa ngi Mamadou Niang dëkk Oumoul Khoura mais entrepreneur euh, su yee ndigal construction waaw chantier bi euh, chantier Touba Ca Kanam fii ci Kër Gol ak chantier bi nekk Bobaleel man maa ko yore waaw liggéey bi nag ñi ngi def suñu kem teg lay kàttan daal li nga xam ne ingénieurs yi ñoom jox nañ ko ci plan saa bu ñëwee li nga xam ne nii ñoom def nañ ko ci plan yi bu ñu xoolee nee ñu ñu ngi koy def ñu ngi koy respecté. léegi léegi ñaata waaw lii fi ne daal mën nañu wax ne mu ngi ci juróomeelu weer. juróomeelu weer ngeen toll. waaw weer waaw. liggéey bi mel na ne mu ngi avancé. waaw na bu avancé na bu baax moom. léegi qualité qualité qualité liggéey bi tamit yaakaar naa ne ak euh, ndax Touba ca kanam ñu ngi respecté engagement yi ñu jëloon ak yow. entrepreneur bi waaw wax dëgg eh, kii ñu ngi koy respecté. li ñuy xaw a am problème tuuti mooy affaire matériel yi. waaw euh, commande yi ak kii daal foofu lay tardement yi. kayit yi waaye nag ñu waaye li ñuy kayit yi moom lépp ñu ngi koy contrat yi li ñu ci defoon. Mhm. payoor yeeg lépp moom wax dëgg ñu ngi koy respecté. waaw ni ñu ko waxante woon. Mhm. waaw léegi kañ ngeen jàpp ne lii war naa mën a waaw waaw fii xam naa ne maximum. Hmm. fii ak moom dina pare complètement bu fekkee dara manqué wul. Ah, euh, waaw liggéey boobu bi dox na ay bu baax moom qualité bâtiment moom wax dëgg yàlla. mën nañu wax ne qualité yu mel nii moom bariwul ci dëkk bi. Hmm, hmm. waaw te poste de santé moom. yi Touba kanam di def moom Touba kanam rek ñoo ko fiy defagum. ndax même état bi du defar poste de santé yu mel nii man liggéey naa fi fu liggéey naa ko. man ba ma dalee liggéey ci bâtiment entreprise yu mag yu ci bari jaar naa mais poste de santé bu mel ni moom wax dëgg mosuma koo gis mosuma koo liggéey ci qualité alaaji mbay Sall di sef de village su Touba boobu rek muy dëkk bii ñu nekk ah wax dëgg yàlla ak yonent bi nag ñun dey Touba ci kanam euh, Touba ci kanam am nañ ci cant bu baax a baax a baax a baax ndax euh, fii dey xéewali Touba ci kanam moom wax dëgg mi ngi fiy law bu baax a baax a baax a baax te gox yu bawe bawe ma nga fa kon nag dañuy ñaan ñun ñëpp daal ñëpp daal fépp fu mbindeef nekk tedib taalibe na bokk ci Touba ca kanam na bokk ci Touba ca kanam ndax ku ci bokk da nga bokk ci kanam te li may fagal di wax nag musuma dem xel xom aw ma kaatu Touba ca kanam gàccaak moo gën moom weesuwu ko waaw ah, yow yow sëñ si xam nga ne lii moom xam nga ne lu mas a yitte wala yow sëñ Cheikh fii nga jamono yene nga di fi ñëw xam nga ne luñ mas a yitte wala bind nañ bindati bindati waaye ndekete woo bi gën moom la ñuy am ndax buñ ñu defaloon lu mu baax a baax euh, bokkut ak lii kon sëñ Touba ci boppam mi ñuy tànnal moo ñuy tànnal Touba ci kanam andil ñu poste santé bu mel nii kon ñu ñaan ñaan euh, sëñ Abibu mi ko jiite ak ñi mu ko àndal ñëpp ñu mi ngi nii ñëw fi ànd ak mbooloo ñu di seet si liggéey bi mi ngi koy di gis fekk naa sax mu di ko soññi naan gaaw leen gaaw leen da ngeen a baaga defi leneen leneen kon nag mel na ne Touba ca kanam ku ca bokk ak foo mën a ne mën naa lawa law ba si fi yow kon bu kenn soogee soogee ba ne Touba ca kanam li muy dimbale du agsi si yow kon na ci ku ci waag a bokk ku daal ñu ngi ñaan nga bokk ci mm. maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ci xam ne bég nañ ci liggéey bi bu baax a baax